waaye ñu tàmbali waxtaan wi ak ki nga xamante ni tey moom moo tax a jóg Balla Gaye 2 le nouveau encore la nouveau chouchou la ren maa ngi lay nii ñu ngi lay fay Modou ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam <clears throat> sant samay ñaari waajur sant suma Serigne Serigne Bassirou Bara di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokki leeram te taf ñu sant njabootu Serigne Touba yëpp njabootu maam bu wér a wér bu Kunta Njaasaan ak Alaaji Malick ak sëñ Babacar Si waaw njabootu sëñ euh, Cheikh na Cheikh Sadik bu wér wér Baye Niass ñëpp li maamu laay bokkunte Ndiassane rawatina suma mbokku Casamance yi di wax ñu kontaan te bàkke ala barka Casamance bi ñu kontaan te bàkke soose joola bambara pël tukulóor séeréer bay nu ngi ñëpp sant naa leen gërëm naa leen balante yi ma baax baax sama mbokku yaay dina wax ne gis naa ñaan yi rawatina géejawaay bu may yoroo di wax Mbaye Diop Talla Meng Modou Fall Simon ak uh, Andaw Pape Mama Diaw sa xarit mm-hmm. uh, Daaro Seck ñëpp rawatina école de lutte Balla Gaye ñi nga xamante ne vraiment mm-hmm. uh, sama booy taxaw nañ ma ci liggéey bi ak Soko Sim mm-hmm. vraiment maa ngi koy sant di ko gërëm ñaa maam laay Euh, vraiment di jaaree suma benn xarit aussi tamit Mbaye Diop. papa ji dafa génn àdduna. di ko ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana yi gën a kawe. ak suma benn yaay bi nga xamante ne ak Sikke ak yaayam ñoom ñaan ñëpp ndeysaan ñu bokkoon même fu ñu dëkk yàlla dogal ñu génn àdduna maa ngi koy jaale suñ mbay mbokkam jaale ko ñëpp waaw. Balla Gaye 2 ak Géejawaay. Hmm. waaw parce que Balla gay Géejawaay la dëkk. fa la juddoo fa la yaroo fa aussi tamit di sant maa ngi jégalu ah. Mm-hmm. fi tuuti di sant fan si club Balla Gaye international. Mm-hmm. na waa Gambie mm-hmm. vraiment Balla euh, Balla famille. donc di leen sant di leen gërëm parce que gis naa taxawaay bi dafa dafa jéggi dayo daal. di nuyu ñëpp di ko nuyu tam ci président turu président bi ki naan Assane franchement di ko sant di ko gërëm. di gërëm fan si club bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp gis naa taxawaay bi. Mm-hmm. mais mu nuyu président muy Assane rek daanaka nuyu naa ñëpp. waaw Balla Gaye dëgg ak Géejawaay Balla Gaye Géejawaay la juddoo fa la yaroo fa la ba yàlla def ko li nga koy def. Mm-hmm. Mm. parce que damay gis mbër su bëree def ay jaloore waa ko ñoom ànd ak moom waa goxam ànd ak moom mais bu amee benn ñaari defet dañ koy bàyyi mais Balla Gaye 2 moment bi mu amee ñaari defet ci la waa waaye gën a mën a ñëwee feesal esaat lu tax loolu loo leen ji loo leen defal. waaw xam nga àdduna moom mooy li ma la wax juddoo dafa metti ci gox. Mm. ñëpp xam la. Mm. man jiw ma leen dara lu lu baax parce que tey ndam bu ma ko amee Géejawaay ko am mais rawatina fan si Balla Gaye ñu ngi fépp. Mm. muy Pikine muy Parcelles. muy jàmm gën muy Sicap. foo yaakaar rek fan si Balla Gaye muy Médina. fan si Balla Gaye ñu ngi fi. mais géejuwaay dafa nekk suma base. Mm. ma ji leen teraanga ñoom it ñu fay ma teraanga muy maire yi muy paa yi vraiment mooy li nga wax nit dina nekk ci ay dynamique boo xamante ne mm. dafay neex. Mm-hmm. parce que dynamique bi ma nekkoon yàlla suñu borom dogaloon na ko. Mm-hmm. mu neex loolu. mais ñoom tamit ñu gëm yàlla ma perte ay combat mm-hmm. ñu ne tey lañ ma gën a jàpp. tey la ñuy gën a feesal ay saat. tey la ñuy gën a jàpp seen doom tey la ñuy gën a fonk seen doom. comme wane ne ñoom mënuma leen fay parce que géejawaay bu ma juddoo ma fierté la ci man mm-hmm. waaw mm-hmm. rawatina doomu géejawaay ku ci mel ni Baye tey ñu ñu ñu encadrement mm-hmm. ku ci mel ni Aziz mooy li may wax la suma papa suma xarit suma lépp duma taay di ko wax duma taay tamit aussi tamit di ko bañ a parce que def na ci man loolu moment boo xamante ne moment moment bu metti la fekk ma mu nekk moment bu metti mu jël risque mooy li may wax pendant neuf mois maak moom tàggoowuñu du téléphone du waxtaan di lépp toujours benn kàddu bi liggéeyal fasal jom xale nga àdduna demagul fenn mais nit mënul ñàkk jaar-jaar. Mm-hmm. parce que jaar-jaar dafa bokk ci doomu aadama boo xamante ne fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi. Mm-hmm. mais chaque jour muy neex mënul nekk. Mm-hmm. Modou Mbaye. Balla Gaye 2 bëri na ak tafaatin daan ko ñu jugee ci loolu nag Bombardier ñëw Eumeu seen ñëw loolu yëpp nekkoon ay défaite ñu doon seetlu Balla Gaye de mbooloo sax bi mu daan indaale esaat moom ci boppam pas supporters yi mais ñu ko doon dar gisatuñ leen mu am changement lu waraloon loolu. waa changement bi c'est très normal parce que aussi tamit duñu ay xale léegi ñu ngi bëgg a yàgg ci làmb. Mm-hmm. ñu ngi bëgg am expérience ci làmb. Mm-hmm. na suñu magul làmb yi. Mm-hmm. nit boo nekk ci dinaa dynamique boo xamante ne da nga naan kañe équipe bi yëpp suudewu doon benn. mu demee ba am ay tolof tolof. nga gis nit ñi mooy li ma la wax rek. boo amee tolof tolof pour nit bàyyi la day yomb pour nit jàpp la day jafe. Mm-hmm. moment boobu nag pour ñu décourager wala ñu dem ba buggatuñu day yomb. Mm-hmm. parce que dañ naan non c'est fini fekk yàlla jeexul. Mm-hmm. yàlla mbiram du jeex li mu yor loolu ci gën a ndaw. moment boobu nag ñu bëri beddeeku ñu bëri taxawee gauche ma jàpp fi ma jàpp tey sama bopp liggéey. Aziz woo mu ci ruux ñu toog waxtaan ak Baye Ndiaye. ñu mm-hmm. confirmer li ñu war a confirmer waxtaan si muy waxtaan ak liggéey rek lañ ma sas. Mm-hmm. yàlla dogal ma liggéey nag gis naa ci résultat. Mm-hmm. ñi ci dem nag wàññiwuñ ma dara. samay nit lañ gaa nag te toujours samay nit lañu. respect laa leen di jox. fu ma leen toll cër bi laa leen jox. waaye man du ma ci am gàcce ndax du ma romb ba xool leen tey ba ñu siggi damay siggi. mais ñoom ñoo ci am gàcce. ñoom ñoo ci am déception boo xamante ni yaakaaruñu woon lii. Mm-hmm. noonu la yaakaaruñu woon ni sax Balla Gaye dina yegsiwaat ci niveau bii moment boobu Balla gëmoon na ni dina yegsiwaat fii. Mourou Mbaye man bañ ma daanee sama premier combat ak Bomba Jël laa wax ne damay indi waa des arènes Guédiawaye. jour bi nga ko ñàkkee. waaw ma ñàkkaat ko teewul teewul noonu laa gën a taxawee dëggal sama bopp ne dinaa ko indiwaat. Mm-hmm. ngëm bu nekk ci man la. ak yàlla def ci man loo xamante ne bëriwul ci mbër yi mu ko def. waxuma pour bàkku waxuma pour dara mais li may wax dama koo xam. mooy li ma la wax ñu liggéeyaat perte naa ñaari combat pourtant li may wax mu loolu nee naa ko mënoo dégg lu ma déggul. Mm-hmm. dégg naa lu ne. Mm-hmm. wax nañ ma lu ne. Mm-hmm. mais ñu ma bëgg ñoo may bëgg ñu may téye te bëgg Balla Gaye dee ñoo ko téye. dama gëm sama bopp retourné waat liggéey wax nga ko. ci Batamba bi nga mujjee def. bu gëmuloon boppam du ñëwaat. bu gëmuloon boppam du liggéeyaat ba am li ma am. kon liggéey rek a wóor. Mm. mais tolof tolof mënut ta ñax mm. waaw liggéey rek a wóor mais léegi liggéey bi dafa am lu ko jiitu. parce que ci sa période combat ak bombardier ak sa combat ak Eumeu Sène période boobu dañ doon dégg ñu ne Balla daf feebar. Mm. mais à chaque fois bu ñu laajee Balla rek da doon fekk da doon tombé ak signature xëy na doo ñu woon wax li xew. mais tey dañu ma bëgg sénégalais yi ñu découvrir ce qui s'est passé. lan moo xewoon période boobu Balla Gaye dafa feebaroon. waaw c'est le boo xoolee Balla Gaye dëgg nag. parce que tey waxuñu ci domaine làmb bi. Mm. ay défaite bi ay victoire bi non. Mm. Mm. Bombardier daan na ma. Eumeu Sène daan na ma kenn mënu ci dara. voilà ku la mais boo xoolee image bu Balla Gaye nit ki nit ki nit 100 pour cent. ak image boobu boo gisee da ngay xam ne lii nekkul lu normal. nekkul lu nekkul normal nekkul lu naturel. Mm-hmm. mais loolu mënuma sax taxaw di ko expliquer métti woon na nag métti woon na mais góor yàlla dëgg nag. ay métit yoo doon yëg la. waaw bu baax. sa biir yaram. bu baax a baax a baax mun ma la ko expliquer mais comme yàlla dimbali na ma maa ngi am ay jéego di ci sant yàlla ah nee nañu sax yoro xëy nekk ci jàmm di lekk di naan rek doy na sant yàlla. Mm, man loolu rek laa ko jàppe woon mais moom boobu neexutu sax expliquer métti woon na. métti mm. woon na trop. métti na waaw mais dañuy muñ rek. pour jug dem entraînement sax problème la woon. entraînement sax xalaatuma ko woon. maa ngi doon tal leneen pas entraînement. tal naa am santé bu baax tal naa nooy baax. taloon naa bëgg nekk ci sama wér gu yaram talu moon sax entraînement mm. mais yàlla nag buy ñëw moom kenn mën ci dara lu waay def ak fu mu mun mënti doon jàppal na rek bi a ñëw loo loo def ci nit ki rek yàlla moo tax nga def ko ci mm-hmm. nit sàqul doomu aadama yàlla suñu borom mooy sàq doomu aadama mm-hmm. lu mu def ci moom ala kulli ali mënoo ci dara waaw moo tax man foofu laay xoolee mm-hmm. voilà foofu ngay xoolee léegi Balla Gaye de loolu yëpp paase na combat mag Modou Lo taxaw naa combat bi taxaw na ñu ne non Balla Gaye dem na INSEPS pour préparer wu ji mais nekkul woon préparation kase préparation bu àndoon ak faju la waaw préparation la boo xamante ne euh, yàlla parce que ku xool suma dernier combat ak Gris Bordeaux bi ma mujjee bëri avant ak euh, Modou Lo blessure laa ko bëree blessure lan dama am problème ndigg sama ndigg di métti mënuma jàpp mënuma def dara mun ñamima sax def action moo tax ma ñëw pour xeex te métit boobu nga bëri waale. waaw parce que boo gisee ba combat bi jeexee dañ ma boot ba ni ma àggee suma gaalaay ma koy dund muy métti yàlla dogal nag bon la mesure ma waxtaan mooy li ma la wax rek toujours bu nit ñi sax ak Aziz ma waxtaan ci moom ñu toog huis clos ñu xool lu ñuy mën a trouver solution ba métit bi dañ wala lii nga xamante ne daf may empêcher bu may bëree yàlla dogal ñu waxtaan ci ñu dem IMSAS Paris. parce que six mois lañ fa waroon def. après nag kon lijjanti yeeg affaire yu mbëri ñu dem mm. def fa trois mois. ñu nag macha allah bañ fa demee moom alhamdulilah rabbil alamin. il paraît que Balla Gaye de période bi muy bëree Gris Bordeaux Balla Gaye abdominaux sax mënu ko woon def. contact sax mënu ma ko def contact sax du ma ko def benn yoon la contact parce que moment boobu noonu maa ngi woon ci diin yi diin yi ma doon yëg sax moo ma doon may sens di renforcer sama ndigg méttit mm. beeg. Mm. ak jàppal beeg benn yoon laa ci contact ba combat bi desee une semaine deux semaines contact ma parce que dama blessé blessé boo xam ne bu may jug dañ may jàpp. pourquoi on renvoyé man góor yàlla laa Modou góor yàlla laa parce que àdduna gis nga yàlla bu lay bu teste ci benn affaire toujours da nga war a gën a am jom xam ne lii yàlla moo la ko teg boo la teggee ko day teggee ko soit que nga nekk ci en top soit que nga bañ a nekk en top. Mm. loolu moo tax ma buraale noonu après tey xoolal li ma yàlla defal. Mm. ñëwaat naa nekkaat ci forme nekkaat ci dynamique boo xamante ne man xam naa ko peut-être nit ñi sax dañuy wax naan mu ngi ci forme waaye man mi mu nekk ci man. Mm-hmm. man xam nga li ngay yëg voilà. Mm-hmm. noonu la Balla Gaye bi ak Balla Gaye y a trois ans am na différence. waaw ah, mais bu baax <laughs> bu baa les combats Balla Gaye ak Modou Lo taxaw na Balla Gaye dem na INSEPS Modou Lo dem na Espagne ñibbisi ngeen tension bi commencé na pourquoi Modou Lo ak Balla Gaye bu ñuy bëree. tension quoi pourquoi. yow xam nga ma bu baax a baax yow say supporter ñoom mais yow yeboo ma ci biir géew yeboo ci mbedd. wallaahi làmb rek ñu boole. léegi buñ daje woon ci ruku wala ñu boole ci ruku dina ne bëre daw. yow ginaaru kookoli nga ginaaru kookoli nu muy dégg. ay tey affaire de la ñëw fii kii lay fay nekk. Amulaay sumeeku la ilaha illallah eh bien masta am les gars le combat est lancé ah. waruma sax di daggasante kii peut-être suma yaram moo tàng mais waruma di daggasante ak moom xale moo màgg vingt ya vingt secondes yàlla ko daan vingt mais bii di nag da daan wax temps de yow nga ne xale nga eh Balla quatre-vingt-cinq judd léegi nga Balla waaw loolu. amul lu nekk si ginnaaw. Real Barça la. waaw derbi la parce que làmb moo mel noonu. Real Barça buy bëri bu ñuy fubal day metti. Hmm. wax ji day bëri supporters yi di wax mais après bu jeexee rek kay da ngay gis joueurs yi ñu nekkaat ci jàmm. Hmm. parce que loolu mooy dundal làmb. ñaari xale yu bëri mbooloo. yàlla def ñu mun a bëri loolu nag macha allah. donc ñun tamit aussi dañuy am lu kenn amul. Hmm. yàlla moo ko defee noonu am nañ lu kenn amul. nit ñi ni ñu soppee soppewuñ ko yeneen mbër peut-être ci période bi ñu toll ak jaar-jaar bi nga xamante ne jaar nañ ko ñu bëre mbapat nit ñi xam lu ñu mën ak lu ñu mënoon moo tax dajee nag làmb jooju day neex amateur yi dañuy kontaan mu nekk événement mm-hmm. waaw événement la boo xam ne Sénégalais yëpp kontaan nañ ci comme mm-hmm. yàlla dogal jeex na ci jàmm mm-hmm. ah ñu sante ko yàlla ci làmb yi ah man surtout man mi nga xamante ne dama damay topp Balla Gaye numéro 2 dama koy suivre ma jàng ci yow macha allah maturité ci communication jàng ci yow maturité ci lu bari yu bari sax yu nit yi di garaawal Balla Gaye de garaawal ko ci combat bi loolu lan la xam danga nga toog ak yeneen ay boroom xam-xam waxtaan walla waa nee xale day màgg. te yàlla dogal na aussi tamit maa ngi bëgg am expérience ci làmb mooy li mu ko léegi def naa ci treize ans wala quatorze ans. yàgg na yàggul mais. fur et à fekk ngay gën a dem. man bu dem ay xale laa nu àndal. mais xale yooyu bàyyiwuma leen dañuy nekk met mais dafa làmb yoo xamante ne làmb yenn yi mag moo koy def. Mhm. kilifa moo koy def. Mhm. ku nekk nag di nga def fi nga fi nga war a dem def li nga war a def ñoom dañuy toog à côté mhm. mais ñu war a téye encadré ma tey man naroon naa def loo xam ne bu ma abdi sifle woon def. li ma naroon li ma décidé woon laa lay wax. abdi doon sifle ma daw xeex ak Modou bëri mais fii laa mesure ñi nga xamante ne waxtaan naa ci kenn. mu dem waxtaan ce kilifa kilifa gi ñoo Aziz ne ma eh li nga nar bu ko def jëlal sa temps entraîné nga am nga doole macha allah li ñu war a def def nañ ko jëlal sa temps nga déglu ko bu ñëwul nga doog a def li nga def mais bu ñu arbitre siffle rek nga bëgg a ñëw passage suñu combat boo seedee c'est la première fois sama papa ñaanama la may def ak wax ak man ak suma baay baal mais boo seedee ma délai bëri ba léegi nga xool image bi man ak Aziz nga déglu wax yi ma doon wax. waaw loolu daf ma daf ma touché quoi. Hmm. ak li mu def ci man nga xam ne làmb dafa doy waar. Hmm. ñëw ci biir stade bi dugg si la buy def soixante mille personnes ngeen dugal fa cinquante cinq mille personnes yéen ñaar. mais c'est normal tey bu fekkoon ne séparé wu woon sax euh, distance. boobu stade bi mhm. ñu des si moo ëpp ñu des si mhm. parce que dem nañu ba bii jeex na. Mhm. ñu jaay suuf waaw ñu jaay suuf kon nga xam ne kon bu fekkoon loolu amul stade bi day fees dell. loolu nag du ñun yàlla suñu borom la. du Moodu. du Balla yàlla moo leen natte ay mbooloo nit ñi bëgg leen ñu nekk seen biir xol donc nag vraiment ah dañuy ñaan yàlla làmb gën a yokk làmb gañe làmb nit ñi yëg ko ci Sénégal parce que ñun tamit ci lu ñuy def bu ñu sonoon làmb ñëpp làmb yëpp ay mel noonu parce que loolu tamit day dundal gox day dundal réew parce que ñun moom la ñu am vraiment loolu kontaan nañu làmb kontaan na amateur yi kontaan nañu CNG kontaan na parce que xam nañu lii lu lu luy dundal réew la. Mm-hmm. waaw ci seen période combat kon yéen ngi doon bàyyi xel ni réew mi mel réew mi neex foo dugg. Ah. waaw débat bi loolu la. waaw mais c'est normal parce que loolu tamit da xam ne lii nag ah mi neex na nag. vraiment ñii mm-hmm. te ngi werante fii ngir Balla Gaye ñii te ngi werante fii pour Modou. après te pourtant ay xarit la ñu doon. Mm-hmm. mais après bu jeexee dañuy xam ne jeex na. waaw loolu neex na trop. vraiment bi ngeen duggee ci biir géew bi. Balla Gaye de li muy doon def pour perturber mu Lo la wala pour jéem a def ay gàllaajam ba mat parce que à chaque fois dama lay seetlu dangay ngay ñëw pour wër ko. te moom day ñëw pour wër la te doo ko lijjanti yow da ngay def say gàllaaj mais moom pour boo koy wër mu bañ lu tax nga bëgg koo waaw xam nga bii passé dañoo defoon butéel yi mu neex. Hmm. amateur yi kontaan. <laughs> ma bëgg koo wër moom muy bañ <laughs> loolu loolu mooy làmb. ah waaw loolu rek nga ci jublu woon. waaw loolu rek laa ci jublu woon. ambiance ambiance pour neexal làmb ji. Ah. donc waa ah? mais pour perturber waale ko aussi sonal ko pour moom mu bañ a def ay gàllaajam. non moom buy def gàllaajam dama koy bàyyi mu def gàllaajam sans problème parce que mu ngi doon def li mu bëgg def yëpp. Mhm. mais man moom dama koy bëgg a perturber mbalak ko daraaye ko. Mhm. parce que loolu la quoi. Mhm. Balla Gaye 2 arbitre bi sifflé na pourquoi à chaque fois bu arbitre sifflé Balla Gaye 2 mooy dox dem ci kaw Modou Lo. waaw mooy li ma la rek xam nga tey koo jàngandool ngeen bokk benn classe wala ngeen bokk école du yem koo xamante ne. bokkoo leen classe xamante woo leen peut-être ci làmb ji ngeen xamante. mu mm-hmm. dañoo bokkoon école mais bokkuñu classe. foo leen bokkoon école. mooy maanaam ñoo bërëndoo mbabat. Ah, waaw mais dajawu leen. voilà ok mais nga xam ne kii qualité bi kii nii la mel. Mm-hmm. Euh, kii nii la mel. bala fi nga may indi ñu ngi ñuy servir de. <laughs> waaw waaw fii fan la. parce ah. que euh, suma grand frère Ilimane la donc léeg bu ma bëggee añ fii fii laay doxantoo ñëw añ fi ah. vraiment maa ngi koy sant aussi tamit di ko gërëm. parce que fii ñu toog nii moo ñu ko yaatal la ah, ba mu yaatu. ma la fi koj. waaw ah, dama fi koj moo bëgg <laughs> moo bëggee añ fi laa ñëwee añee vraiment. di ko remercier bu baax Elimane Lam. Mhm. Mhm. léegi Modou Lo nga yéen bokkoon école mais bokku leen woon classe. classe waaw. Mhm. waaw ñoo bokkoon école mais bokkuñu ñoon classe. parce que tey bu ñu génnee récréation dañuy gisante. moo xool ni muy tooñee ak gars yi ni muy nekk ak gars yi loolu mooy mbapat nañu. mais bon suñoo daje. xam naa li mu mënee moom xam na ni mu ne kenn ku nekk xam na capable lu moroom li fu mu war a àgg ak fu mu war a àgg. Mm-hmm. moo tax may xam ne may bëreeg moom. Balla Gaye ak Balla dugg na ci garde bi dóor na Modou Lo na Modou dóor na Balla ñoom ñaar attention dóor mu daanu attention Modou Lo Balla Gaye numéro ñoom ñaar jàppante nañu Modou Lo Balla Gaye ñoom ñaar ñi xeex attention ñoom ñaar ba Balla Gaye ngi dóor Balla Gaye ngi dóor ay percute. moom ak Modou Lo attention Balla Gaye numéro 2 moom ak Modou Lo ñoom ñaar Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo moom ak Balla attention nu ñuy def Balla ngi dóor Modou fayu na ñoom ñaar ñi ngi xeex attention Modou Lo ak Balla Gaye Balla Gaye a ngi dóor attention Modou Lo Balla Gaye ñoom ñaar Balla Gaye a ngi Modou Lo ak Balla Gaye attention ñoom ñaar attention Modou Lo ak Balla Gaye Balla Gaye da ko bëgg ñoom ñaar Balla Gaye 2 attention ñoom ñaar ci suuf Balla Gaye 2 Modou Lo ñoom ñaar Balla Gaye 2 daan na Modou Lo la ilaha illallah Balla Gaye 2 na Modou Lo. Mhm. arbitre bi sifflé Balla Gaye daw sànni deux coups gauche bi dalul. Mhm. a sànni dalul. dalul waaw moom mu dóor bu dal. Mhm. ah. non gauche dalul moom gauche droite am dalul. <laughs> ban moment la coup yi commencé. gauche njëkk a dóor ah, dama dóor gauche droite mu daw reculer gis coup bi. bu taxawoon rek. da koy dal yaa ma gën a xam. mais moom après ma topp ko gëdd ko mu ko tëyee gëdd ko mu dóor arrêt de gos arrêt de gauche bi daal na après nag ci lañ commencé gauche pang pang pang pang gauche ku nekk di xaaj. Mm-hmm. après ñu jaabante. moom foofu deful erreur ci biir bëre. ah mais ku deful erreur doo daan. mais erreur bi mooy la fait dafa waroon a génn foofu. waaw c'est normal parce que boobu jekk duwul woon. bu doon yow la di nga génn. non non du génn <laughs> sama njàmbaar ak sama jàmm yi man dañoo ñëw open press su Modou ko quoi ci biir combat bi la des ba léegi ñu gis Modou ñu ñëw sa open press nga yëg ci kaw oto bi Matar Mbaye mii moo ne ma moo làmb ji rayante la gis nga Balla Gaye est-ce que gis nga Modou Lo démb làmb ji rayante la te loolu ngeen bëri yee ñaar waaw c'est normal parce que ñëpp ñu doon xaar ñu toog ay année bëriwuñu te Balla Gaye Modou Lo day dekk làmb day tax amateurs yi bëgg bëgg làmb nit ñi belloo seen xaar encore ci làmb combat boobu mënut a yomb tey boo seetaanee Balla Gaye de Modou liggéey gu mu liggéey Espagne. Mm. Balla Gaye li nga ko MCS en Paris. Mm. jàmbaaram jomam. Mm. Modou noonu. mais combat boobu mënut a yomb. parce que loolu mosuñu ko def suñu suñu vie. mais léegi ñu ci biir combat ba tey après léegi jàppante ngeen loolu dinaa ci ñëw mataar léegi li yéen ñaar jàppante ngeen bi ngeen jàppantee liggéey bi maa ngi gis yaa ngi tijji poxotaan bi parce que yaa nga woon ginnaaw da nga bëggoon mu dugg ci poxotaan bi. non Modou man laa ci làmb. deux pieds là. Mm-hmm. ibbi mu pokotaan dama jàpp gos jàpp troit di xeexi gauche def position boo xamante ne bu ñëwee li ma bëgg dama koy def damay bëree tànk gauche damay bëree tànk droite loolu yàlla def na ko. moom mm-hmm. dama doon xeexi gauche bàyyi droite bi bëgg mu ñëw mais ñëwul xam ne li mu bëgg. Mm-hmm. xam ne man damay bëri deux nga koy xaar. waaw. léegi chute bi lan moo ko waral. léegi ba ma jàppee gauche. deful benn réaction mu ngi fay ma jàppaat gauche encore xeexee droite. Mhm. ni ma gisee muy xeex droite. teg na ma nengeñ man tam ma bàyyi arrière tuuti. Mhm. def déplacement. Mhm. gauche droite ci laa ko suru xale bopp bi. mu def déplacement gauche ah. ci ko xool déplace droite. xaw ko xëcc tuuti. mais boo ko xëccee rek boo ko téléphoné day xam li nga bëgg. xëcc ko tuuti mu ñëw. yàlla dogal ba mu ñëwee nag ma gën a jàpp. jàpp gauche jàpp droite. Mhm. ñàddu ko. te li ma gën a seetlu ci combat bi mooy Balla Gaye bi muy dóor ak main droite am bi mu xasee ba jàpp loxo ngemb Modou Lo dóoreetul loxo droite bi. non xaj naa di dóor loxo bi mais mayu ma ko ma jàppaat droite bi. ok léegi après loolu moo indi chute bi. waaw ci biir loolu nag ba mu surxee après ma fàq ko mu ñëw def des inflexion muy gën a dugg moo ko fàqee mu ñëw bàyyi ma ko aussi tamit mu loxo yi dugg ci biir sama yaram nekk ci kawam. bu mu jàppee nengeñ parce que bu jàppee loxo bi man moment bu maa koy ñuux di ko ñuux loxo yi day dem ba du du bëgg a jàppaat léegi ci biir loolu benn loxom jàpp ma jël sama conc bi mm-hmm. dóor ko ci concam mm-hmm. boobu maa ngi ko jàngee IMCES Paris hmm? waaw nga resté leçon foofu waaw ma <laughs> <laughs> parce que entraîné naa ko uh-huh. donc mu ko jëlee fàq ko loxom bi bàyyi ci suuf mm-hmm. parce que léegi ma dootu jàpp bu jàppee rek man sama koy penk rek mu wàcc ci la gën a ñëwee nag après ci laa def bi. Mhm. daal ko daan. nga daan ko chute boobu nga daan ko jël bu mel noonu foogoon nga ni jël bi dina demee noonu. waaw Modou xam nga boo mënee bëree. Mhm. jël bu nekk mu nga doo ko sax xalaat day ñëw rek nga def ko. Mhm. waaw ñëw rek yàlla dogal mu nekk ci rek nga def ko. bi nga njëkk a faax dafa defoon def gisoo mu def foofu quatre appuis. non mënu def quatre appuis. parce que jàpp na jàpp baax. mu jàpp baax. Ah. du mën a def quatre man maay bëgg rek li ma bëgg. def ko tuuti mu ñëw. mooy fàq bi tuuti mm-hmm. mu ñëw surux. waaw léegi làmb ji jeex na. Balla Gaye 2 daan na mm-hmm. lu njëkk ñëw ci sa xel bi nga daanee Modou lu njëkk ñëw ci sama xel mooy sant yàlla. jëliwaat mm-hmm. ci yonent bi sallallahu alayhi xool ñi ma doon jàppale ni ñu sonne woon ci man. ak ñi naan mën na ko ñi naan mënatu ko. ma xool samay supporters sama xol fees ma xam ne ñii ak école de lutte bi nga xamante ne vraiment booy. Mhm. bëggal ma seen bopp. Mhm. jàppal ma seen bopp. Mhm. barki dem Samba Law bee ngi toog sama plateau na yaay seen papa. waaw Samba Law bi comme mooy loolu. Youssou. Deux. Ndigal. El Hadj Diouf. Bamba. ah ak ma ak ak Doole. ak suma frère suma xarit ak sa ak Lom Fort. ak l'homme fort <laughs> samay doomu ndey. ndeysaan. ak suma frère Ama Balde. maa ngi koy sant bu baax ci ko gërëm. Mhm. sama sang la. waaw mais Pikine rek la gëm gëmul dara lu Pikine mais mais yàlla moo doon mu nekk suma sang. Mhm. parce loolu mi ngi indi polémique ah diggante Ama Balde ak Balla Gaye mi ngi indi polémique ba sax am na ñu comprendre a à mhm. di ko ci mere. waaw ñu bëri dinañ comprendre après. parce que Ama Balde lu dul Pikine gëmu ko. chaque jour dama yor benn affaire. Ama Baldé Pikine moo dee ci xolam Pikine la bëgg tey pikin la bëgg suba Pikine la bëgg gannaaw suba. Hmm. fa la juddoo papam moo fa def loo xamante ne mbër defu ko ci hmm, Pikine. Hmm. te papam fa la juddoo. Gilles Balde magam papa Balde ñoo ñëkk ay champ Paate Balde ay champion lañu. Ama Baldé Pikine la gëm fa la juddoo fa lay yeewoo fa lay naane mais yàlla moo dogal samay mbokk papa la mu nekk suma mbokk loolu il faut que nit ñi comprendre ko mais du daray escroc wala du daray nafiq mm. nit ku correct la nit ku direct la mm. ñu xamul rek ak jaxasekat yi ñu xam ne Ama Baldé sama deret la sama mbokk la sama frère la mm. mais du leneen Pikine lëg la gëm man géejuwaay laa gëm man damay dem Pikine di fa añee di fa reere di fa ndékkee te pourtant waa géejuwaay xam nañ ne tey man Pikine la géejuwaay laa juddoo mais Ama Baldé suma frère la suma pour ñi ñu xam ko rek Pikine rek la gëm gëmul leen lu Pikine. Mm-hmm. lu mu am Pikine ak ko gënal. 2010 mm-hmm. bi nga bëreeg Modou Lo gii moo doon entraîné Modou Lo. 2018 gii yaa ngi ci yow. 2010 bi nga bëreeg Modou Lo baaboo nekkoon ménager Modou Lo 2018 mi ngi ci yow ñooñu daa am luñ la yokk ak lu tax ñu ñëw ci yow sax nag ci pé lu tax baabu ñëw ci yow ci période boobu. waaw xam nga Père suma xaritu papa la. suma papa léegi boo seetee sax mag la yu bëri mënatu ko. Mm. mu nekk xaritam. yàlla dogal lu ci bëri moom moo koy doxal moo tax sax per baabu en même temps mu yàlla dogal avant muy ñëw ci man nekk euh, ci man mm-hmm. boobu tàggoon na ak moom mm-hmm. du loolu moo tax mais du leneen mm-hmm. gi aussi tamit selaa la même chose man ba ma ñëw mooy li ma wax samay kilifa laa waxtaan ñëw indi ma fa yóbbu ma fa di ko remercier ku ci mel ni kii sonn na ci combat bi ndax jàppale na ma ci entraînement ci tous les di sant xaadim aussi tamit moom it sama coach musculation di ko sant baax di ko gërëm. Mm-hmm. jàpp na ci combat bi. Mm-hmm. ak Kanté Bodian. Mm-hmm. vraiment aussi tamit jàpp na ci combat bi ak Assane Thiam. coach gym nag. ok vraiment ñooñu sumay nit la ñu. Baboy. Baboy bi ngay bëreek Modou Lo seen combat bu njëkk. moo ñëwoon defendre si Modou tey moo ñëw nekkaat sa ginnaaw. waa xam nga relation boo xamante ne man xaw ma xaw ma man lu mu sama bopp laa xam. du ma kenn gis naa yàlla te gisuma yàlla. Mhm. baaboo yi sama xarit la sama mag la. Mhm. suma nit la suma lépp la. Mhm. yàlla boole nañu mu nekk bu may def leen sax damay dem laaj ko wala may dugg leen laaj ko. parce que loolu fi lañ ko fekk. waaw. beneen coow aussi boo xamante ci combat Balla Gaye ak Modou Lo la ba tey muy kaaw Tafa Gueye waa Sénégal ñi ngi ciy wax te Balla Gaye xëy na il est bien placé pour wax ci loolu. ñu ne Tafa Gueye bokk na ci ñi nga xamante ne techniquement ñi ngi doon jàppale Balla Gaye ci combat bi. ak sax yeneen ah parce que contre Yékini ñi ngi ci ñu ngi ko ci doon dégg ak yeneen combat. waaw xam nga àdduna moom euh, Modou ma wax xamal la benn affaire bu ndaw tey Moustapha Gueye suma papa la. yàlla dogal na bëri nañu ba may bëri Gris Bordeaux moo ko indi. Mm-hmm. mu def say coono yu métti. teewlu reyante nañ ci biir géew bi ak suma staff teew dañoo pare nekk si jàmm. Mm-hmm. Moussa Fall bu Paris. Mm-hmm. mu nekk IMSES Paris. taalibe Xaadimu Rasuul waaw. moom moo nekk xaritu Moustapha Gueye loolu dafa jiitu sama juddu man mii di wax ak yow bu ñëwee kër Moustapha Gueye lay nekk loolu ñëpp xam nañ ko képp kuy Fass man xam nañ ko comme moom bu ma engagé moom Moussa engagement engagé hmm? mm-hmm. mu nekk xaritu Moustapha ñuy yendu di nekk suba ak ngoon guddeeg bëccëg mm-hmm. Moustapha Gueye Moussa Fall bu ma yóbbu entraînement day ànd ak Moustapha mais du question Moustapha Gueye daf maa jàppale wala Moustapha Gueye daf maa def nangam déedéet. Hmm. ma bëgg nit ñi xam ko mos ngeen mosoo leen gis benn image boo xam ne Moustapha Gueye dafa simmeeku wala mu jàppale ma naam nii ngay def wala nii ngay def. Hmm. kon Sénégal nit bu waxee rek dañ ko jàppale wax wax de lañ dégg. acca acca ah, fils mais sax ci sot la. waaw mais acca acca fils ah. loolu nit sportif moo mel noonu. yow ngi ni sa micro boo gisee kenn ku yor micro sax ndeysaan. da koy kontaan da mbër noonu la mel mën naa dem sax benn écrit boo xam dama yem rek hmm. maanaam ko acca champion hmm. jël sa image yow ko naan diw jàppale li lay jàppale bu may bëre ak Modou man li ma def a gën a garab loo def la woon supporté <laughs> xaw ma ko ah. xamoo ko ah. moo tëgg laa ji xaritu Modou loolu xam nga ko xam nga loolu leer na xam naa loolu te pourtant moo ma jox avance hmm. néew ma ko wow na néew ma ko tooy te xam naa ne ñoo dox li ñuy dox ba tëgg combat bi mais teewul man dama am ay mbokk jàpp fu ma jàpp ma ànd si samay encadrement ànd ak samay SF loolu yàgg na ci làmb. Mhm. Gaston ñaata combat ma tëggal. bari na. dem nañ ba nit ñi naan moo ma jàppale. Mhm. mooy promoteur Balla Gaye promoteur Balla Gaye ah. loolu yàgg nañ ko wax. Mhm. mais li am solo mooy boo jëlee avance da nga koy assumer boo demee boo jël avance assumer baax. loolu mooy lekk loolu la cadre Moustapha Gueye ak euh, Moussa Fall demee mm-hmm. mais Moustapha Gueye man am naa droit man may bëree sax dem ba këram war na ma mm-hmm. sama papa am na lu mu def ci moom mm-hmm. sama papa faasa ne ko benn jour maa ngi tooñ mbéy gi naan ko bu fekkoon euh, euh, Gris Bordeaux di ko tooñ naan ko bu fekkoon ay jënd jour dafa am man day waa faasa may jënd loolu yëpp tooñ la am naa droit dem seeti sama papa mbéy génn ne ko ah xel mii lii la na nga loolu mooy sport. ñu mhm. jàpp ne loolu question far. Mhm. Mhm. ba xaw a indi woon amal seen bi mu lay daan moo keroog bi muy ñëw bi ngeen ñëw monument de la renaissance ba xaw lañ gis ci kanam jiitu ñëw suy ay affaire dem. loolu yaa ma ko wax gis ma fekk ma fa. ah waaw. yow yëgoon ni ba xaw ñëw na fa. non non yëgu ma fi mu doon fi mu doon def yow foofu nga ñëw toog. waaw mais man fekkuma fa. àndoog ba xaw ci combat bi. non man fekkuma fa ndax gisuma ba xaw encadrement bi xëy na peut-être ñooy wax ak ah man je ne parce que dama wax dëgg gisuma baxaw moom mu ñëw ma toog mu def dara. ok woon tamit. non gisuma ko koo gisul kay dana ànd ak moom. léegi làmb ji jeex na ci moment bi Balla Gaye di jubilé ci biir saat bi la sama papa wax ni Eumeu Sène ak Modou loo taxaw na te gars yi ñu ngi doon wax naa Eumeu seen ak Balla Gaye mhm. léegi Eumeu seen ak Modou loo taxaw na loolu yow déjà bi nga ko déggee rek loo wax. non lu may wax. ah doo war a dem sa diggante ak Eumeu Sène nga wax ci. non aw ma wax parce que xam nga lu may wax. Hmm. man am na encarement am naa saf. lamb dafa am chose yoo xamante ne boo xoolee sax da nga xam ne lii nekkul mbër nekkuma mbër bu namm dara man ci làmb yàlla def na ko combat Modou Lo Eumeu bu taxawee dafa war a taxaw parce que làmb la daanoon na ko moo bëgg revanche c'est normal làmb la. Hmm. loolu kenn muñ ci dara. promoteur bi moo ko soxla moo ko bëgg amateur yi bëgg combat parce que loolu taxul ma bañ am combat mënul ma bañ am ndam ku ma yàlla booleel nga xam yàlla noonu la ma boole moom moo war a bëri moom ñoom bu neex la Sénégal yëpp koy xaar combat boobu waaw léegi léegi potentiel adversaire Balla Gaye ñu ngi ciy wax Gris Bordeaux ñu ngi ciy wax Bombardier ñu ngi ciy wax Tapha Tine promoteur yi ñëwaguñu Père Gasson ñëwaatagul waaw kon ni nga ko wax rek xam nga du per Gaston rek moo nekk promoteur du Luc Nicolaï moo nekk promoteur ak ñeneen ak ñeneen bëri nañ mm-hmm. mais man wàllum combat du ma ci parce que am na encadrement boo xam ne ku ciy wax rek da ngay wax Aziz luñ ci wax rek man pare naa pour def ko ñooñu nga lim ñëpp kuñ ci ñëw baax na parce que làmb laay def man dama toll ci liggéey damay liggéey waaw. ci ñëw baax na mais Tapha yaa ko daanoon euh, Bombardier moo la daanoon mm-hmm. te yaakaar naa ni jëli revanche ngay gën a bëgg ko maye revanche wala. waaw làmb moom xam nga day def nii bul buy tourné la rek. Hmm. da ngay xool nga xam ne boo xamante ne méngóo na ak ki nga xamante ne war naa day moom rek ñu day moom. Hmm. si INSEPS da nga fay delluwaat. pare goo parce que préparation bi jeexagul. non jeexagul vraiment. Hmm. <laughs> da ngay delluwaat. dañuy liggéey. li des si uh-huh. carrière bi moom. respect rek. respect respect. mooy respecté li ngay liggéey. fonk li ngay liggéey. jàpp li ngay liggéey. jàpp te bu bàyyi xam fay teg sa tànk. waaw waxoon naa ko père. <laughs> waaw mais sa open press bi gisuñu fa Lac de gisuñu fa guy gi gisuñu fa yenn mbëru géejawaay te bi nga njëkkee jël micro yow danga nga ni man doomu géejawaay laa ma la ci beneen ne la ah. deretu mooy daw nekk ba pare waxaat ne ku fi tax ngeem maa tax nga tax ngeem waaw loolu dafa leer loolu lu am la géejawaay bu ñu bëggee làmb wala bu ñu xamee mbër Balla Gaye dé moo tax boo gisee moo la loolu du dara parce que damaa xam fu ñu toll ci man. ma xam niñ ma bëggee ma xam niñ ma fonkee mooy li wax léegi tegale nga fi ay défaites stade bi gën a fees euh, tey école de Balla Gaye yàlla moo dogal ma nekk tëdd fii ma respecté suma entraîneur respecté suma papa muy Balla Gaye hmm. respecté ñi ma nekkal respecté xale yi ma nekkal. kon tey man loolu rek doy na sant yàlla. Mm. parce que la fa nekkoon bëri maa nekk. Mm. mooy toujours ñoo ngi may respecté toujours ñoo ngi fonk toujours ñoo ngi jàppale ci li may def. Mm. noo gisee Bantamba temps yi dafa gën a garaaw. waaw Bantamba ah Bantamba dafa dafa yàgg gën a garaaw euh, di sant aussi tamit euh, ñi nga xamante ne teew nañ fii. Mm-hmm. ku ci mel ne Baye Ndiaye maa ngi koy santaat rek encore toujours. Mm-hmm. bu baax a baax di ko gërëm. Mm-hmm. di gërëm Assane bu baax euh, ak Yara. ak Ndiogu mbay mi nga xamante ne sama xarit la vraiment yàlla boole ñu. di gërëmaat encadrement baax Kor njaag maa ngi koy sant di ko gërëm Omar géey rawatina waa géej waay di gërëm aussi tamit euh, Ngañ sama coiffeur maa ngi koy sant di ko gërëm ndax nit ku baax la. di gërëm commissaire di sant ko sant bu baax di gërëm Thierno Gueye mi nga xamante ne. vraiment ku ko xam-xam kook man ñu yàgg loolu. ba léegi Moussa Khadi ca Moussa dellu ginnaaw. ñu ngi koy sant di ko gërëm di gërëm ñaari soxnaam ku ci mel ni jaara ku ci mel ni Daba Ndiaye ñu ngi koy sant parce que tamit liggéey bi yombal nañ ko. Mm-hmm. vraiment di gërëm tamit aussi tamit ñëpp di santaat ñëpp. Moustapha Buju maa ngi koy sant di ko mm-hmm. gërëm. waa di gërëm maam Binta bi nga xamante ne mooy soxna ndax jiraan ba ma nekkee ci regroupement vraiment. Mm-hmm. lépp luy togg moom moo ma ko doon jox ma koy lekk. di ko sant di ko gërëm ak njabootam vraiment kontaan naa ci moom. di ko ñaan yàlla yàlla bàyyi ko suñu kanam ak jëkkëram di sant aussi tamit miis bi nga xamante ne ci mooy ñaareel bi mu nekk nit ku baax vraiment sonn ci combat bi bu may dem sax am bala defal nànk teeyal mm-hmm. kërëb kërëb vraiment di santaat tamit Aziz bu baax a baax di ko gërëm mm-hmm. di santaat suñu papa Baye Ale mm-hmm. di ko ñaanal wér wérlee ak gudd fan bu baax a baax di santaat suma yaay mère Khoudia Diop bu wér a wér a wér a wér waaw di ji di di sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw ah, waaw ak di jaale Coro vraiment yaayam dafa génn àdduna. Mm. di ko ñaan yàlla na ko yàlla yërëm. Mm. te xaaral ko àjjana yi gën a kawe. waaw mm. ah, di gërëm bàcc bi nga xamante aussi tamit euh, nitu Iliman Lam la. xaritu Iliman Lam la frère Iliman Lam la. vraiment di ko gërëm baax mooy général bi fii. liñ fi naan lu neex ak fi nga toog ñu placé. Mm-hmm. fi lay làqatoo di fi añee. Mm-hmm. ah gratuite laa fi añee ah, di fi lu ma neex doo fay non non jamais Iliman du fi nekk mooy fay. <laughs> kon vraiment maa ngi koy sant di ko gërëm. Ah. Hmm, di gërëm aussi tamit ñaari soxnaam yi. ah Elimane moom nekk ni ku baax. Hmm, ak Simon ak vraiment képp ki nga xamante ne jàppale nga Balla Gaye rek ak sama boy yi nga xamante ne ñoo nekkoon samay buntu kër di fa toog bu ma nee Cheikh rek. Hmm. jiital naa ko vraiment ma koy sant ak Zal suma gardien. ak Laye Mairie. ak commissaire bi nga xam ne franchement jàppale nañ ma ci combat bi. ci gërëm Aline Seck sama xarit. liin mm-hmm. di ko gërëm bu baax a baax ku ma limu rek dama juum mm-hmm. ak suma grand frère Ibrahima Sakho maa ngi koy santi di ko gërëm mm-hmm. di gërëm Awa Awa suma jabaru mag maa ngi koy sant di ko gërëm di gërëm Xarisa Marème Maymuna vraiment suma yaay bu ma sukk jur suma soxna maa ngi koy sant di ko gërëm franchement gis nañu taxawaay bu ñu may taxaw ak ami ak maire yi nekk ci koñ bi ñoom ñëpp vraiment jàppale nañ ma jàppale gis naa seen togg seen lépp. Mhm. ndax sonn nañ ci combat bi ak suma dëkkandoo yi. Mhm. maa ngi leen di baalu àq. Mhm. parce que tamit dëkkandoo dafa metti duñu nelaw guddi duñu nelaw bëccëg. ndax benn nit. suma papa imaam yi nekk foofu. jàq ja maa ngi gërëm suma paa i nekk foofu. ñëpp di leen sant di leen gërëm. santaat naa Sénégal santaat naa àdduna képp kuy supporteeru Balla Gaye 2 maa ngi koy sant maa ngi sant Ndoye bu dëkk Pikine ah. Ndoy maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm Ndoy bu Pikine waaw Ndoy Ndoy bu Boña Ndoy maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm loo loo loo santee Ndoy Ndoy sama xarit la ah waaw Ndoy sama xarit la man mm, Ndoy sama xarit la te xam naa ne sama xarit la daf ma bëgg Ndoy kenn gënu koo bëgg baala Gaye 2 day wax nii pour xumbal nii rek hmm. mais ku bëgg baala Gaye 2 la keroog Pape Sarr gis nañ ko ci internet bi ah mu ne baala Gaye 2 na dem toogi wala bu fekkee daa bëgg ñu bëreeg moom nañ indi peel mu indi peel gas suul waaw Pape Sarr moom tamit ku baax la xam nga Pape moom fanseur la man dama koy seetaan di ah. moom duwee dama leen hmm. parce que loolu mooy àdduna hmm. Pape Sarr ni ku baax la Pape Sarr frère xam dafa ma bëgg bay laa déggoo mu ne dugg nañ sama kër <laughs> tu vois loolu loolu mooy àdduna dugg nañ sama kër man rek lañ indiwul <laughs> man rek maa des te moom bokkul moom sax ci fan la uh-huh. moom dafa baax ñoom ñëpp loolu mooy àdduna mm-hmm. pikin loolu la xam nga mm-hmm. man daa foofu ndaayan dama fa laa ñëw mm-hmm. fa laa doon man Pikine laa foowee moo tax seen dara jaaxaluma peut-être wax ji moo fi nekk nii rek man falaa laa falaa defee su mu lépp lu bëri Pape Sarr Ndoye ñoom ay nit ñu baax lañu mais àdduna nag aussi tamit lépp lu ñuy wax tamit euh, léeg-léeg tuuti rek. Mm-hmm. ñoom ñaar ñuy wax lu ñu xam. et mm-hmm. affaire yooyu. Mm-hmm. parce que adduna c'est pas la fin du monde ah. waaw mais làmb la nag c'est normal. di gërëm ñëpp daal di gërëm waa Pikine sama fan si club yi fa nekk ak euh, suma yaay du mère Doucouré. Yacine Doucouré vraiment maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. ndax su yàlla boo xamante ne bëggul sax mooy tudd turam. Mhm. mais xam naa nu mu mel ci man ak di sonn ci man. Mhm. ak doomam bu ma nee doomam rek ëmb na lépp. Mhm. waaw bëggul moom it ma tudd turam. bu ma tuddee yaay ji rek daanaka alhamdulilah. waaw ak sëñ Daam. Bañas. sëñ Daam waaw sëñ Daam maa ngi koy si bu baax. kontaan naa Modou Mbaye. bëggee naa la. ngi jëm ci campagne électorale. te bari na à chaque fois li ñuy dégg ni ñu naan mbër yi ñooy ànd ak politiciens yi mbër yi ñooy xeex fii mbër yi ñooy lii te yow Mballa tu es une voix autorisée pour wax ci loolu. en tant que jeune en tant que lutteur la ngay wax ci loolu lance message bi ngay lancer sa moroomu jeunes yi ci campagne bi ñu jëm. waaw Modou li nga wax ni lu am solo la mais xam nga mbër dafa am bayre mhm. ba lu ñu wax ñu ne mbër yi mbër yi rek nekkatuñ nekku nit ku rëy sax ñu ne mbër la. dëgg la. te loolu demewum noonu. Mhm. bëgg nit ñi aussi tam bàyyi seen xel. Mhm. nit ñi entraîné bu ba jàpp bëgg liggéey gaar ñi am na fi. mais aussi tamit peut-être mbër yi. mbëri laa la wax ñu tax ñu naa mbër duñ dem naan dañuy gaar ay dugg ci yoo xamante ne ñu ko dugg peut-être ay xale lañu mais lépp lu ñu ci def rek dañ ci dal dañ xam ne Sénégal la yem génnul Sénégal ku yàlla jox ndam nga war a nekk président danga koy nekk kon vraiment maa ngi xale yi ñu xam fu ñuy teg seen tànk bu ñu du dugg daray violence ñu xam fu ñuy teg seen tànk xam lu logique ñu def ko lu logique ñu toog jàpp seen ñaam seen liggéey rek mën na leen intéressé mais liggéey bu ànd ak violence amul njëriñ soxlawuñ ko société bi. jërëjëf mbokk yi seetaan la 2STV